ñëw na ah, boo déggee coof nag mooy coof bu mag bi xam nga bu dañu am euh, doraat bi la ñu yor fii euh, doraat bi laay def coof léeg-léeg waaye coof dëggantaan ñëw na borom sikkim bi kooku mooy jooba jubba ñu koy woowee Lamine le grand cordonnier l'expert il est là parmi nous aujourd'hui euh, pour parler bien sûr de la culture mais parler aussi de la cordonnerie ah, ndax métier la boo xamante ne métier bu noble la mm, boo fàttalikuwee ca ca ca Grand Dakar ah amoon nañu fa cordon cordonnier bu mag mag mag mag a Euh, daan euh, bégal bu baax euh, kilifa yi ndax de machine yeeg lépp la yoroon di defar dàll yeeg di defar semelle yi mm-hmm. donc tey nag bu ñu amee ndaw yu mel ni yu jël mm-hmm. relève bi dafay ànd ak fierté bu mët a mët mm-hmm. mais li ñu war a waxtaanee mu jëm ci consommation locale ana naka la def ba yenn ak valeur yi ngeen bàyyi marque yooyu nekk bitim réew. Ah. non man ah yow bokkoo ci waaw dama ju dama ju astafurla astafurla. gisoo ma ah, tuub naa ko. yaay tuub naa ko. borom njëte gi fàtte sama bopp bi borom njëte gi tuub naa ko astafurla tuub naa ko valeur laa bëggoon wax gayel bi. gayel bi di waaw si ñun te valeur yi keroog wax na bëgg na sax nunu bi mu fi ñëwee. moo waaw bëgg naa nag kii di dem kaw 48 heures. kaay ma wax la kii nii rek ci kaw nii mais ci suuf nii affaire bi du loolu de. Lamine ziar ak màggal naka yite yi. waaw yàlla yàlla nañu ziar sant alhamdulilah maa ngi am bu baax baax. soxna si nii la def. si de nii la ma def madame Diop. ah waaw. mais mais mais mais yow nga ne koo nopp kon dëggantaat. Biige Fall la tudd. Biige Fall laa nopp. Biige Fall. waaw waaw nga nopp moom rek la wax nii ah? moo ko peñee sikkin bi waaw c'est ça moo ko peñee waaw moom mooy toppatoo de ne ko bii laa bëgg nga sol kese nag tegal ma ci mbaxane bi. barke téere maam yàlla. Eh! <laughs> nee na barki téere maam yàlla wax na lu yàgg yàgg téere maam yàlla kon digg neexul ba neexul waaye Bigué Fall la ko yor Bigué Fall daal moo ko yor ay Fall njaga yaaram loo dund doyul Fall Fall yow loo dund doyul lu mu dund rek doyul ay seex sax dañ la koy ñaanal amiin yaa rabbi yow yow yow demal ca kaw ca kanam waaw amiin yaa rabbi muy gën a di aju rek waaw waaw na nga xool continuer di muñ rek affaire yi yaa ngi waaw waaw affaire yi yaa ngi tegu fa ñu war a tegu du dëgg mais tout se passe bien alhamdulillah il est mignon ah macha allah eh, c'est Bigué Fall c'est Bigué Fall Bigué Fall ni nga moo si daal mais déedéet avant ah, bañ. non mais maa si daal man ci daal. non man maa si daal da ngeen dalante. ok mais man damay wax ni man maa si daal. kon yow yaa ci daal man maa si daal. yaa ci daal. Nicolas. waaw merci beaucoup mais avant ñuy euh, xóotal waxtaan bi ak euh, Lamine. am hmm. nañ deux réactions yoo xam ne Moussa Sène ñëw na de tey dafa am biir. wax nañ Moussa ah. mais c'est bizarre. ok Moussa dafa am biir quoi Moussa taxaw ci genre euh, mesdames et messieurs vous êtes dans urgence pour parler aujourd'hui de la. gis nga ko yéen lay maye de dafa am biir temps Moussa Sène. cee sa neex. waa Thiès neex na tamit ah, ah, comme ni kër bi Fall neexee. ah neex na de Thiès neex na kay. Ah, macha allah kon da ngay yónni régie wala ngay ànd ak moom. may ànd ak Moustapha rek. ah ayca àndal ak moom déglu ñaari yi di leen encourager pour ñu jël lu moom ci solo bi nag. ak ci lekk bi ak ci doxin bi ak ci waxin bi ak ci jëfin bi ndax boo xoolee bu ñu jëlee local lu njëkkali man damay naan bu ñu jëlee ancien Sénégal ñu indi ko tey dinañ mën a consommer local facilement du doon tamit dañ koy jël ci waxin rek ça veut dire que ñu dellu ci yenn euh, affaires yi suñu maam yi daan def. Sénégalais duñu consommer local parce que dañ je peux dire dañoo complexe en plus. Euh, sénégalais yi ci boppam ñoom ñoo valoriser wul seeni produit par rapport ak xoolal ci soble mbay bi rekk euh, soble bi ñuy kii. importé moo gën a baax que soble mbay bi déjà soble mbay bi bëri na ndox je comprends pas boo koy toggu sa sauce bi day fees dell ak ndox suuf si xaw ma moo baaxul xaw ma engrais yi ñu ciy def moo bëri xaw ma en plus sénégalais moom pour ñoom bu ñu consommé wul lu jógee Europe solu ñu dara xool ko rek ci man maa ñu ni takk ceinture sol tubéy pour man bu ma solee vax wala mooy loolu fi mu ne boo solul jiin soloo lu jógee Europe pour yow soloo dara pour yow t'es pas stylé daal dama yaakaar dañu complexe seen bopp. waaw Nicolas fi mu daanelee laay yëkkatee li mu wax ni pour ñun ba solul jiin Valérie clenchement la nag. dégg nga bi la rek waaw mm. dañu laaj dañu sampu laaj rek lu tax mm. sénégalais. du consommer local Lamine nekk ambassadeur euh, du consommer local. bëgg ñu euh, jëriñoo li nga xam ne moom la réew mi di euh, liggéey. looloo mm. waral tey moo woo ko ci plateau bi. bëgg ko laaj nag lan moo tax mu bëgg a porter boobu lépp combat xam naa ni du doon lu yomb ndax ngaay rek président de la république depuis 2014 déclaré na ko capital artisanale. waaw tout d'abord salaamaaleykum wa rahmatullah mhm. may jiital si nuyo bi suma sëriñ di Cheikh Baye Mouhamadul Hadi Thiam macha allah di si teg euh, suma wayjur bu góor mhm. Babacar si Diop ma koy nuyu mhm. di si teg tamit euh, ki nga xamante ni mooy suma wayjur bu jigéen di Adja Khady Fall sopp na bi waaw di si teg nag madame Diop ah dafa jar a wax waaw bi di ko nuyu bu baax waaw waaw comme niñ ko waxee parce que dafa nekk combat boo xamante ne nii du combat wu Lamine kese. combat wu Nicolas la. Mm-hmm. combat wu Njawar la. Mm-hmm. combat ñëpp la. parce que ni ñuy wax consommation locale boo demee si yeneen dëkk yi moo xam dëkku tubaab yi dëkku nasaraan yi. Mm-hmm. wala sax sori na boo demee ay Nigéria bi. sous région bi sous région bi. ñoom déjà ñi ngi valoriser comme euh, élément bi jàll léegi. xale bi wax ni que dañuy war a gëm suñu bopp pour pourquoi ñuy war di sol ay jean wala ay et cetera. boo demee ay sous région bi ay Nigéria léegi ñoom seen ay haute couture nekkatul ay genre ay costume mm-hmm. ay marques yu mag yooyu ñuy mm-hmm. wax mm-hmm. léegi ay tenue africaine la ñuy sol yoo xamante ni nii parce que ñoom te li leen di dooleel mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk seen dëkk di doomu dëkk bi ñoo ñoo leen di jënd ngir dooleel leen kon nag tey jii nii ñun ñu nekk si dëkk bi ñu ñoo war a mën a dooleel moo xam artisan yi moo xam tailleur yi parce que gars yi léegi ñi ngi liggéey si dëkk bi loo xamante ni nii foo mën mënti dem mën na génn mën na liggéey mën na def lépp quoi. kon nag ñun ñëw si war a mën a jàpp ñu ñëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu xamante ni dërëm bi bañ a génn gaal gi. Ah. comme ni ñu koy waxee ma sœur moom miy dem di voilà comme du ma ko clash comme gars yi quoi 48 ah, heures. dem ñëwaat mm-hmm. alors que li muy dem 48 heures. alors que mi ngi si dëkk bi. te si dëkk bi lay desaat. kon na dañu war a gën a jàppale gars yi. voilà quoi bu ko defee. affaire yi mën a yaatu. tout à fait voilà nañ nga euh, wax ñu tuuti rek yow tey jii boo ko doon def nan nga ci nan nga koy liggéeyee comment tu gis nañ ne da ngay defar daal ndax foofu rek ngay yemale sa combat ou bien. non du question de dàll yi man damay defar. man tey jii dàll yi am nañ photo euh, bu ñu ko mënee. Hmm. Moussa Ba dinañu koy joxaale waaw waaw. ok hmm. en fait euh, man dama nekk ci dàll yi. Hmm. en même temps. yére bii ma sol aussi dama nekk ci yére yi léegi parce que dàll foo ko solee dàll di ko booleeg yére bu foo solee yére di nga ko booleeg dàll boo xamante ni adéquat ànd na ak mm-hmm. yére bi mm-hmm. tu vois léegi du coup tey jii nii sunu mbokk téyeer yi wala sunu mbokk moo xam artisan yi wala maire yi nga xamante ni dañuy defar ay panier yooyu noonu nga xamante tame yeeg mm-hmm. voilà loobe yi yett foog gars yi mën a gëstu moo ñi nga xamante ne ni ñooy sunu kilifa yi mhm. ñu gëstu ñoo ñoonu si suuf dooleel ñu ngir ñun li ñuy liggéey nit ñi mën ci teg seen bët nit ñi mën si jot mhm. parce que li ñuy dem di uti ji bitim réew ñu ngi fii si dëkk bi mais ce que yéen dem ngeen ci kilifa non ñu ñi ngi dem si kilifa yi déjà ñu ngi dem si kilifa yi moo xam euh, structure yu mag yi ñuy taxawal mooy APDA et tout mhm. ñi ngi dem si ñoom ñu ngi leen di approché voilà mais c'est juste combat boo xamante ni la du combat wu Lamine kese lay nekk. wala combat Nicolas kese. Hmm, combat wu sénégalais yëpp hmm. lay nekk. Hmm. muy sénégalais bu góor bi muy sénégalais bu jigéen bi. tey jii alde dafa nekk benn marque. boo xamante ni comme marque yeneen marque yi mag yi ñuy dëkk yi ñuy dégg si dëkk bi. comme Louboutin. voilà damay bañ a citer. Mm. voilà mais juste. moo mooy mooy mooy mi ngi noonu. da nga naan marque rek. voilà damay tooñ sax tey maam Diarra Pouné Fashion da nga naan marque Pouné yi. waaw léegi marque Pouné yi. voilà tey damay tooñ maam léegi marque Pouné LD nekk benn marque. boo xamante ni benn doomu réew bi. Mm-hmm. boo xamante ni seen doom seen frère. Mm. moo ko moom créé ko. d'accord léegi tey jii ñan ñoo war Euh, ni ñu koy waxatee njëkk a nekk suma first support suma premier support. Mhm. mooy sénégalais yi. ñoo war a mën a ñëw gis ku nekk gis boppam. ci mhm. LDA. ci li ngay def mu xam ni lii doomu Sénégal la moo mhm. koy def doomu réewam fii si réew bi la koy liggéeyee de ce fait ñu mën si jàpp à ce que LDA mën a dem si kanam. ak keneen ak keneen. bien sûr mais am lu gars yi décrier mu ni dañuy wax ni consommons local xam naa peut-être dafay buñ ko gars yi buñ ko déggee rek dañuy jàpp ne dafa yomb moo tax ñuy wax ne gars yi seen produit dafa cher. non consommer local. consommer local yombul de Lamine. mooy comme ni ñu koy waxatee rek gis nga lu la jege rek. Mhm. nee nañ kiiraay la quoi lu la jege rek kiiraay la. parce que yaa ngi gis ni ñu ngi liggéey si dëkk bi te matière première bi. Mhm. voilà moo xam mhm. euh, cuir bi moo xam caoutchouc yi moo xam leneen ak leneen. main d'œuvre bi di metti kon nag tey jii mënuloo si daj coono boobu yëpp. ñu koy jaayee ay benn genre. 1000 francs wala 2000 wala mille parce que déjà suñu sœurs yi tàmm nañ loo xamante ne nii lu yomb mooy maanaam dem si chinois yi jënd fa benn dàll 1000 francs wala dàll 2000. Mhm. mu def alors que dàll boobu nga doxee ko ñaari fan dàll bi daj nga dem si benn uude bu nekk si koñ bi. bu koleel la ko nga ñëwaat dox mm. déedéet. alors que mun nga am benn dàll cuir boo xamante ni ni mën nga ko doxee ay années. absolument mhm. tey jii qualité nee nañ loo ko jëndee rek. jar na ko jar na ko. parce que benn dàll booy jëndee benn quinze mille wala lu mu mënti jar. Mm-hmm. lu baax moo ma gënal loo xamante ni nii. voilà quoi bi voilà parce que. lu ko jar c'est acceptable c'est abordable euh, en tout cas may bu baax a baax Ndiawar at euh, invité am bii di Lamine. macha allah kon nañu leen tàccu. waaw voilà kon waaw comme ça bu ko defee ñun suñu genre gi ñu mën a delluwaat tuuti. Hmm. mais sànq dégg naa euh, soxna si si reportage bi. Hmm. ba muy ne euh, day mel ni complexe moi je trouve pas que c'est man hmm. jënd naa dàllu uude. mu metti sama tànk. parfois ce n'est pas confortable. parfois aussi style bi nga ci bëgg ak xëy na raffin raffinement bi nga ci bëgg itam parfois doo ko gis. par exemple moom li muy proposé nii c'est très beau c'est magnifique. mais da nga ciy gis. xeneen waaw da nga ciy gis ñeneen ñoo xam ne man jënd naa. naa fi dàll ci bu yàggul rek de. Mhm. mais sama ñaari baaram da doon métti da doon saf dama ko mujj simi teg. et pourtant ils te disent que cuir la dañ ko war a tàppaat fii dañ ko war a di xam boo demee itam bay jënd dàll itam et tu n'es pas très confortable ci sa dàll. amatul njëriñ. Euh, jiin yi nag moom dañuy bàyyi ba après ñu a ci mais tey dañuy. du reste tey et puis ce n'est pas un complexe aussi ce n'est pas un complexe. Mhm. na gis lu rafet aussi nga jënd ko. tey uude tey bu defaree tey lu rafet tey mhm. ñun dañ koy jënd parce que ah. nous les femmes nous sommes euh, les grandes ci société bi donc yéen leen ay daal yoo xam ne neex nañu dañ koy jënd effectivement effectivement source d'inspiration vous vous inspirez sur quoi ci mën a defar ay dàll créer ay design ba nit war ko mën a gis di ci gis boppam parce que tey jii nii boo demee si euh, ay marques yu mag ñoom seen société seen label dañuy am ay designer d'accord ñoo xamante ni dañuy dessiner tout à fait loolu rek mooy seen liggéey si société bi ñoom dañuy dessiner mhm. ay dàll mhm. de ce fait que ñu jox ko ñeneen léegi confectionneurs yi mun ko confectionner d'accord mais tey jii nii benn LD day toog mu xool benn Nicolas Dox sol benn dàll mus na ma dal si gàmmu 2015 ñu demoon Kaolack mhm. ñu toog doon dem ziar suñu kër sëriñ sëriñam muy Mamale Thiam Mamale Thiam moo tuddee baay baay macha allah ñu demoon këram di ziar benn xale romb ma sol ay dàll plastique dàll yoo xamante ni ni xam naa dàll je sais dàll la xaw ma lan mu romb ma ma woo booy bi e booy kaay booy bi ñëw ma ne ko booy est-ce que mën naa la photo mu taxaw nii ma foto ko alors que dàll yi mu sol laa soxla woon léegi si dàll yooyu mais inspiré aussi indi si ay modification war nga fay droit de droit voisin de. li ñuy wax ci te xoolal te des fois. Hmm. daf may dal ma toog ma am benn dàll comme ma defar benn dàll. d'accord ci benn dàll bi. Hmm. dinaa ci xalaat ay lanière parce que hmm. bëri na si dëkk bi ñoo xamante ni. comme sama photo yi nga gis ni da nga koy gis si réseau sociaux yëpp. très bien ñu koy posté waat comme soi-disant ñoom ñoo koy defar. Ah. alors que dàll bi boo ko voilà loolu tamit problème la. alors que dàll boo ko bëggee. am na ay secret yoo xamante ni si liggéey bi. Mhm. voilà pour nga am dàll LD bi. loolu moo ko. Euh, LD kese moo ko mën a def. loolu moo différencier dàll LD mooy touche originale bi. parce que damay indi benn modernité boo xamante ni ni si si dàll yi parce que damay xalaat tey jii comme suñu papa bi toog yërin bi mu sol mu rafet. pourquoi mhm. tout le temps mu war ko boole ak mbaraakis am na ay dàll yoo xamante ni ni ay kilifa yu bëri si dëkk bi léegi dañuy dem ba léegi. ñoom solatuñu yeneen dàll dul ay dàll LD parce que dama bëgg LD sénégalais bu nekk gis ci seen bopp. absolument muy papa muy xale muy mag muy ndaw mm. muy jigéen. Mm. comme léegi soxna si li mu doon wax léegi. waaw juste foofu sax naa moom parce que consommer local dañ gis problème mu finition. voilà surtout loolu li mu doon wax. parce que bëri na liggéey bi bokkul aussi. Mm-hmm. tu vois léegi man boo xoolee sama liggéey am na benn euh, sama benn client. boo xamante ni dama ko mus a jaay ay chaussures fermées mhm. bi ma ko jaay ay chaussures fermées yi mu dem ba bureau kilifa la kilifa la mu woo ma téléphone mhm. mais libre ak ñi mu nekkal mu ne Lamine ndax dàll bi fii lañ ko defaree ma ne ko bien sûr parce que il n'arrivait pas à croire que dàll bi defar nañ ko ci dëkk bi. tellement finesse bi tellement finesse bi parce que machine yi mi ngi fii et puis métier bi mi ngi fi. d'accord mais nuyu de passage. Mhm. sama grand frère boo xamante nii moom laa bokkal liggéey bi. tey man maa fës man la ñu njëkk a gis. d'accord mais moom moo nekk si ginnaaw. vitrine bi quoi. voilà moom moo nekk si ginnaaw. Hmm. di ma dooleel. d'accord maak moom ñëw sekk liggéey bi ñoo bokk liggéey bi. tu vois léegi du coup. Hmm. dama xalaat lépp parce que am na ñoo xamante ni dañu am non ma wax turam. ah d'accord <laughs> yéen kooku du mais tey jii nii <laughs> euh, comme li muy wax nii am na ñoo xamante ni dañu am problème mu tànk. d'accord. ñi am ay sciatique ñoo ñëpp dañ leen di xalaat. Hmm. du coup ñi ma leen di defaralee daal ak ñeneen ñi leen defaralee daal. bokk dafay wute. voilà yooyu yëpp dañ koy xalaat du coup. loolu moo tax confort euh, ni ñu koy waxatee ñu bëgg. daal bi confort bi mu am. ni ko si apporter de telle sort que voilà boo ko solee du metti sa tànk. jaww Namine boo amoon un message booy lancé pour sénégalais si euh, consommation locale. bon message bi may lancé euh, si sénégalais pour consommation locale muy genre. ñoom ñoo war a. mais gis naa mu de mbuus yi xaaral. yow xaaral mu ñëw. Ah. <laughs> yow tamit Nicolas. ma ko yàq de. yow ah. Nicolas man man man mënu ma jox ma yoon numéro 10 ne ma séddale ma yàq loolu du ma ko def. <laughs> ok c'est dama jël capitana bi jox ko Lassana. Euh, Lassana mais 10 euh, moom. voilà ah. voilà c'est léegi euh, juste message bi may lancé mooy. tey jii ñii Sénégalais yëpp foog ñu ñëw ñu jàpp si. ku nekk gis sa bopp si LD. très du LD Lamine moo ko moom. Mm-hmm. non LD Sénégal bu nekk gis ci boppam. Mm-hmm. de ce fait xam ne bu jàppalee Lamine jënd benn peeru dàll. Mm-hmm. dafay jàppale boppam. parce que économie réew mi la parce que fii lay desaat ci réew mi. président de la république woote na ko. voilà moom woote na ko. tey jii defaral ko dàll moom. non moom defaral gu ma ko dàll mais bëgg naa ko defaral dàll nag. non il faut nga defaral oui si tabaski bi surtout si ah, tabaski bi. Ah. pré si moom la war a njëkkee. président dafa war a sol LD. daal dem taxaw buntu palais. buntu palais daal yi naan nii. waaw garde rouge bi naan daal yi dañuy defalal monsieur Ndiaye benn. ah waaw surtout ñu defal monsieur Ndiaye benn non foofu foofu bien PDG. PDG moom ah, voilà c'est ça ah, am nañu raccourci voilà mi ngi noonu quoi président. loolu yëpp PDG non non PDG PDG Ndiaye. voilà. gis nga. dañ lay yóbbu de. dañ lay yóbbu de. man dama bëgg tabaski ci jàmm gis nga ay pointure président moom. non non non xam nga daanelal foofu voilà c'est ça quoi. foog gaa yëpp ñu ñëw. très bien gis seen bopp. d'accord gis ni que doomu réew mi adresse bi nag man maa ngi nekk parcelle euh, unité 19 wetu école Dior soriwuma trop ak école Dior. très bien voilà ma may la numéro téléphone bi. waaw numéro bi 77. Euh, d'accord 518. waaw 86. waaw 54. waxaat ko. 5 77. waaw 518. 86 54. très bien kooku mooy euh, Lamine Diop Lemzo borom sikkim bi macha allah <laughs> chéri Bigué Fall. waaw maa ngi soxna Bigué nag ñoo ngi lay sant di la gërëm bu baax. a <laughs> di la wax loo muñ ak loo góogóorlu rek doyul. Uh-huh. nañ ci gën a jàpp bu baax a baax. baax ndax ñoom ay doomu aadama la yoo xamante ne bu leen neexoon ñu bàyyi fi seen métier dem bitim réew mm-hmm. uh, daal koy uh, liggéeyee foofu waaye dañ ne déedéet duñ ko def dañuy ñëw fii toog seen réew mm-hmm. uh, daal koy liggéey bokk ko ak ñun ñi nga xamante ne des africains duñ ne sénégalais mais les africains de manière générale ndax du ñàkk de temps en temps di nga dem voyage dugg mm-hmm. ci yeneen réew ngir yóbbu li nga xamante moom mooy produit yi pour ñoom tamit ñu a ci xalaatam s'il vous plaît. jërëjëf euh, damay féliciter Lamine. Mm, parce que man euh, cordonnier yi xam naa leen bu baax. macha allah te yaakaar naa am nañ aussi outil bu baax mooy le chambre de métier. très gis naa ne aussi tamit wax dëgg yàlla sénégalais nit ñu macha allah lañu parce que ko boo ci gisee cordonnier wala maçon wala menuisier. Mm. aussi même bu jàngul da ngay defe ni kii ingénieur. tout à fait mun nañu tracer mun nañu mm-hmm. defar lépp. mais dama koy encouragé aussi di ñaan na ngi ñaar na ngeen góorgóorlu ci qualité. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que qualité dafa am solo. nit ki munoo ko tënk. na jënd la muy jënd du qualité. parce que loolu aussi de joué ci wér gu yaramam. d'accord beneen bi may daanale aussi mooy parfois loolu moom. dañu ci góorgóorlu boo commandé tey mu defaraat la lu baax. Mhm. nga indi keneen mu commandé waat ci loolu day bëgg doubler prix bi. parce que boo ko ne lii baax na baax na rek day mel ne ku xaw a rëcc tuuti. Mhm. naan li ma ko defloon naa yokkaat prix. d'accord mhm. moytu très bien jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax laasana ñu ngi jaajëfal bu baax mhm. euh, président Ismaïla Sow ci disponibilité bi ñëw euh, tontu ci question yi maintenant man li xaw a ëllëg tuuti sama bopp rek ndax homme de l'ombre yi gars yi nekk ci ginnaaw danañ ma mais euh, xar yi ana moo gaañ ma ne noonu nañu bàyyi émission bi jeex na <laughs> bu ko defee dinañu kii ah, wax ci yi nañu bàyyi mbuus yi damay joxe antenne bi de. taal ngol ngol ñu ñëw. Euh, soxna Mbaye ak mu ngi ñëw. mais ni ma laa daal ak may taf tafee. ah non taf tafee la ma la. waaw ah, mais baax na waaw mais ah, léegi Moussa ngi ah, léegi damay njëkkee si yow. ah bon voilà. ayca bi yaa ko moom. déedéet. Eh, waaw bii nag. <laughs> allah. njawar moom lii. aywa aywa euh, ba léegi. Eh, mercredi prochain yaa aaye dégg nga. mercredi dinañ la jox daal. incha allah macha allah. incha allah am ni Moussa may ma ko am ni. may ma daal yi voilà daal yaa eh, ngi. daa bëggee jub na cëm borom HLM ah kii mooy magu eh, Mbaye Diagne l'international waaw. ah waaye yow sax daal dafa aju de. lay lay la la waaw